asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo émission bi di taxaw seetlu mbokk mi ñëw nañu si ni mu gën a yaatoo lenn ci ay vidéo yu nga xamante ne nii seetaan ngeen ko jëm ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne nii moom la ñuy def fii si àll bi plus précisément si jàmmalaay suuf projet boobu nga xamante ne ni nag moom mooy asamaan ak suuf comme ni mu leen ko waxee lan moo tax ñun ñëpp ñu war ci adhérer en masse parce que le système di capitalisme moom laa la bëgg yaatalal ci li nga xamante ne ni noonu nga ci loro ba musiba naaru lay fekk la ci mbokk mi bi ma lay wax ne la portable six cent mille laa indi newuma la ne la dama bari xaalis moo tax ma indi portable six cent mille bi may jóge bitim réew non parce que foofu le capitalisme daf lay defaral loo xamante ne ni toujours da nga si war a nekk di fay bor lu nekk ay téléphones yoo xamante ne ni koy jënd di koy fay cash dafa am foofu plus précisément ci Japon euh, benn maison bu ñuy wax Softbank man foofu laa nekkoon donc euh, am na Softbank am na Docomo moom mooy comme par exemple boo ñëwee fi Sénégal ay Tigo ak li nga xamante ne ni ñoom ñooy ñoom Orange léegi maison yooyu ñoom boo buggee téléphone lu téléphone bi cher cher dañ la koy jox pendant ans ñu di la dagg li nga xamante ne ni moom mooy téléphone bi mais crédit bi rek ngay fay mensuellement si ni nga koy consommer donc par exemple su fekkente ne ni téléphone bi un million lay jar weer bu nekk ñu di la ko dagg 1000 francs wala 1500 doo ko yëg fekk am na leneen loo jëlaat fële ak leneen loo jëlaat fële ak leneen loo jëlaat fële ak leneen loo jëlaat fële ñu la koy dagg par 1000 francs 800 fii fii boo dajalee loolu rek dafay nekk 1 million malgré les 2 millions que tu gagnes mois donc kañ ngay génne si réew moomu noonu pour mën a taxawal loo xamante ne nii lu nit mën a teg bëtam di wax ne diw mii nii ah lii même boo taxawalee loo xamante ne lu diw mën a teg bëtam fii Sénégal loolu noonu pour nga toog si dund si dund gi nga xamante ne ni moom moo war loolu dafay nekk beneen complication encore si sa dund pourquoi parce que euh, il faut que nga nekk fële di man di continuer di envoyer fii xaalis pour man di fay li nga xamante ne ni moom mooy sa kër fii sa téléphone fii sa kii fii sa lii fii sa lii ak sa kër fële sa téléphone fële sa oto fële sa lii fële sa lii fële donc c'est le système du capitalisme donc toujours da ngay nekk foofu noonu comme guichet ak automatique di génn xaalis tak teg si table bi cak teg si table bi cak teg si table bi sa loxo bu defee nii si kaw rek nga dégg musiba mu jóge si mbokk yi nga xamante ne nii ñoom ñoo la gën a euh, jege donc dootoo ñemee def loolu noonu parce que boo ñëwee Sénégal mënuloo fi def lu wees un mois parce que bu boobaa ana lan ngay dunde parce que fa li nga nekk na le am na ay bor yu la fay xaar mooy waral ñu bëri si ñun bu ñu ñëwee rek cak-cak ñu dawaat dellu maximum bu ñu fi defee plus d'un mois ñu commencé am ay bor di dugg di génne di di ñu dégg si lu nekk parce que li nga xamante ne nii moom mooy li war a taal oto bi wala kérosène bi war a dawal avion bi fële ngay dem di ko liggéeyee cak di teg si table yi cak di teg si table boo demee nag ba si réew mi nga xamante ne nii fi nga dëkk fi nga juddoo fi nga màggee nga am fi lépp ay immeuble wéré ba yaa xam say château nekk fii mais boo ñëwee mun loo fi toog un mois yoo xamante ne nii un mois yu dëgër la parce que toujours yaa ngiy xalaat dawaat teelu pour mën a càkk di teg si table bi boo fi defee sax un mois ñu commencé di lay laaj kañ ngay ñibbi dara gënul metti tamit loolu si réew mi nga xamante ne nii fi nga juddoo fi nga màggee fi nga dëkk ñu di la laaj kañ ngay ñibbi ana kañ ngay ñibbi ana kañ ngay ñibbi mu mel ni que yow sa nekk fii dafay dem sax ba dafa leen di euh, sonal donc asamaan ak suuf nit ku nekk li mu bëgg moom mooy di am loo xamante ne nii tout simplement moom mooy li muy dund tool yi ak vidéo yi nga xamante ne ni moom lañ leen di pare wanaat gannaaw buñ leen leen waatee numéro bi nga xamante ne ni moom mooy 78 527. 45 62 61 pour ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy les intéressés si projet asamaan ak suuf investir sur la terre parce que la terre ne ment mbokk mi ah woon nañu la te bëgg nañu partager ak yow li nga xamante ne ni moom la ñu gis ay neex-neex ñu indiwaatal leen ay vidéo si asamaan ak suuf si jàmmalaay siin si kàttanu borom bi bi nga xamante ne ni moom nag moom moo ñuy may. exemple bi c'est un un champ de piment. lii yëpp euh, ngay seen lii yëpp kaani la donc en phase de production si tu veux kaani bii nii pied bu nekk rek ñu ngi ko jëndee cent franc CFA donc li ñu si kaani bi la pour am les pied qu'il peut récolter chaque jour chaque jour 4 à 5 kilo 4500 tu fais le calcul pendant un an et demi qu'est-ce que ça va donc quand il a et quelques pieds <laughs> tu remercies le ciel quoi donc nous sommes en face euh, de aménagement machin truc des choses comme ça quoi ça date juste de trois mois maintenant. Donc, euh, c'était au début du mois de juillet uh, the mangoes ne uh, this one is waaw uh, I don't know you ndax garab si xam nga ko bii pom mhm. waaw bii toolu gerte la waaw lii yëpp ngaa seen ni gerte la hmm? mbokk mi kon nag dañuy continuer toujours rek si li nga xamante ne ni moom mooy xéwalu yàlla yi nga xamante ne ni moom mooy jóge si asamaan di wàcc si suuf mu nekk loo xamante ne ni doo rendre compte kenn xanaa di santaat suñu borom rek di koy ñaan di koy sant moom mu ñuy dolli saay si nekk si beneen numéro